Bourg. Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Aïe Salon en tissu, Aïe Salon en velours, tout bas ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. La Traiteur. M60, Maktoum, Beauté Divine Création, Amici Jan Foulard et Création, Kala Shop, Reflet d'Ébène, Mima Couture Gay, Black et Fashion by Tutu, Jaria Shop, Mifa Création. ci kenn ku fasi ak li kuni, boole c'est ma famille, ma belle famille. Mais en tout cas, t'as une belle chambre, hein Merci. Elle est bien décorée. Même moi, j'ai pas ça. Non, rien me gâcher. Mais ça pas mon laïak. Non, c'est pas de la hmm. Mais, mais j'espère que tu comprends. Hein. C'est pas que je veux pas partager la même chambre que toi, mais on est des filles. On a besoin d'intimité. Non, mais t'inquiète, je comprends. Y a pas de problème. Ok, top. وهكيا خلاص كيا لا يوخلني مين هو كرس كيا يو يجلس سكسة ده يا يو لالا خبرنا أمنا بين خالي بقول بلا يسات من مي يا أوكي نمل أنتو كا لما جستمو صلنا جينا ندال sol na kap mel ni koy maytu naaj foor na fuur na dang na mu ngi ci kaw photo yi di la xaar. sama ko nekkuma fii ah yow koo yàq mag magum jëm bu ma dinaa wóor ba heure bii yow say wax di tax man may fen. mënta ne Abdou yow loo fi def. kii yow doo sax nit. lu ma def. lu ma def en plus yow kiñ laa commencé wax di dégg sa baat kia waaw. jóge nga banlieue ba léegi yaa ngi fii. vie de luxe. commencé beew ko waa kii waaw. ah léegi yow dama lay woo doo ma jël sama message tamit doo ma tontu. amu ma crédit te sama connexion moo jeex loolu la rek Abdou. amoo connexion te yoroo crédit. léegi wax réseau bi baaxul yow su ma la woowee du ma la jot. stable. stable. kii yow am nga fit sa kanam mu ñeme bii mu naan stable. waaw xorom baal ma naa la woo expliquer la waaye ngir yàlla te yàlla tax jugal nga dem fii sama kër jëkkëru yaay la su ma fi fekkee damay am problème sama na yegg si na. jàppale ma rek nga dem. <coughs> Kia tu me présentes. Abdou Mami Zara C'est ton petit ami. C'est trop mignon. hey mes enfants. Ah. ah t'es quand même la belle surprise pour moi. oui papa. ah papa. hey comment vas-tu mon cœur. ça va. ça va et toi. Euh, on a un invité. un invité. Fallou Kia moo ñëw seet Euh, ah bon. y a. tonton qui sama ce la monde day dem ça n'est-ce pas. Salam Euh, Malikum salam. ça va. Ça va. leen di

su ma la wooyee jotuma la yow xam nga ma sax. sa dàll bi comme bato. yow kii yaa yow yaa ñàkk personnalité yow booy yi booy yi ma firoon sa niveau dépassé na booy yi kii tuñam ni mètre vax doxam ni tournevis yow ñi war yow ñii. yéen ñaar booy. Hmm. eh xamal noppi de. sa yéen ñaar du xam ngeen ma. Hmm. maytul leen ma du xam ngeen ma bu baax. picc muy naaw le dafa gumba dafa dël xool fa muy mujjee dafa yar tangaayu jaaxana asilaayu ajana oo mbëggee aa wala mbëggee sama xol ee eh, sama xol moo ma tàggu woon moo ma tàggu woon moo ma yóbbee Mais. Mais toi C'est ça ton style de garçon C'est avec ça que tu sors Man laa je bëggee mais ni lay waxee yow sama xolom poil c'est que ne maa un bopp Tu es un bu ma maîtriser bu pas ma diri dima ma gauche droite dima ma Non noonu la rafetee Tu est une relation amoureuse ton un poil rek Ah, baax na. waaye madame Fall waaye yow da ngaa bokk foo xamante ni nii pour bokk foofu yombut yow bu nu bu nu neexee dàqante la ci métier bi ko ma Fall dabee mam say njaay wala nga dem ci demel dëtt fu njóogu wala ñu dem ci demel Samba Yaaya Fall xam nga ni nii nga mel moom rek nga war a mel waaye madame Fall waaye. gis nga lan la ma wax ni madame Fall. ngeen ma génne ma kër gi. indi fa benen beneen jeeg oh, yow revenu sur terre li di jabaru fek nar yow xamé wa jabaru fek nar yow yow bo da ko dem mu da ko dem nga xamné bokku len yow butu naturel mo ne ci yow xol xef xef xef xef yi ngay teg daa bokk ak ke nga xamanteni ni bu rosaw day ñew ba fi man dama yaakaar sax sima ma kan, leen wat ci kër kan? gi iya, yoroo ngaame kaña ya? ah ay sam fas ñampewul mën fa revenu sur terre sa xarit kat moma xex xeex génne ma kër gi. muy yéen eh, kooku am na lu ko doy mom xulli na ba door bopam ci paka ba paka ba nga xamante ni xamul dara ba dara bolo jeex mom bu sàgganul mom moy génn kër gi mom yow ñëwal ñibbisil. ñibbis moom xalaatuma ko jamais de la vie kër gog dootu fa tegati sama tank ngani ngani lan yow. te na teegaa ba a wax lii mbaa xam nga ne lu jiitu ci xol des ca dama ne waa ji bu ko waxee yow la bëgg ndax ba ma lay topp ku ne xam na ko rawati nag léegi nag boo sàggu ne dina waaxu ñëw ba fii raam ñëw ba say tànk jooy ndax yaa ngi mel xam nga lu mu doon damaa bëgg nga loo jàppoon na nga ko bàyyi te fu mu kër gaa ngay toj xanaa yëngu nga lool moom yow gën yow yow yow yow yow ñëwal dafa dee sa teer ñaari xale lañ fi indi ñoo xamante ni nii ay kus yoo xamante ni nii tolla taay ñoo fa ñëw ñoo fa wàcc ay wàcc bees ak ku xees pecc koo xamante ni kooku moom kaa man ci am benn tiitaange ndax nee nan ma pël ba jay këriñ ci koñ ba ah suñu suuf si rek lay topp de suuf si rek lay topp waaye xanaa booy gorontoog di nga gorontoog ñu baax da ngay gorontoog ay garam daam ñoo xamante ne naan say gorom a nga nee waaye mu ko ay ñoo xamante ni kenn xam nu ñu dul te balaa la jooy jooyee jàpp ñu ñëw ca kër ga karité gu nekkuñ ci réew mépp nu di yokku xase ku nag karité ah goro taamu nañ ci veneur goro da koy séen nga xam samay goro nga ne bay par xam samay goro nga nee waaye goro yoo xam ne nii lañ toll يوصل تاعي خشم كل يوم خمنتني واي أنا تقع خمنتني بوت على اللي يلي وي رتر الجوس لا يبقى وش يدوم بيا خم لو مدن لا غفر لنا به يا من منا لا أما أنا منا ama maa nag namoon naa la ma ne nga wax ma li la fi indi nam moo ma tey nam moo ma ëllëg bul ma dóor bul ma frappé marto bi ngay teggi sama kaw laa wax waaw yaay yow tam doo bàyyi di ma araftu ah man sax damaa waxul loolu Xadija eh, nag moom noo ko gisee Xadija mi fi sëy si nga wax équipe de football bi nag gisoo leen ah mbaadu Tano njaboot bi ngay wax ba ma yow tamit loolu dara nekku ci nag waaw wax nga dëgg loolu dara nekku ci ci yow ndax yow dangaa saytaane fii barab te nag lépp loo def rek ak lu xew ci kër gi dara umpula si ndax Fadel lu muy dugg suba ba ngoon dina laaj sa xalaat lii lépp yaa ko ci dugal maa di ma wax loolu ma waxul gis nga magum jëmm la te lépp lu mu mën si def xam na ko nga fi Fatima nek ko ci kër gi diko bundu xatal metit bu ne nga tek ko ko ba mu xey jël ay bagage am dem jël ni xol li jeeg bon bi li lay def jeeg bi ne fax ci digg heure bi ñepp a ci marché ba yow yaay jeeg bu bon yaay jeegu singom yaay jeegu dajji ngam yaay jeegu pacangaa heure bi sa morom ya ngay liggéey di balé ka fóota ka passé yoré sa jeeg mu te faax tok talul dara ndax internet war a toggal goro toggaloo njëkke defoo dara yow yow dara bëgg a jura yow dara ferege mente wu la. Eh, dimbali ma yow fàtt yow yow lan ah, ah, dama lay dóor kay. Ah, yow lan yow. dóor sa goro moo la dese. waaw yow ma ne la kii moo may jural doom ñoo waroon a jur am ñaari doom kundum nga ñëw am sa ñaari doom dara talatoo ko lu dangaa dem palaane ñuy waxati nga simante ñuy waxati nga mastige. ba mu dëgër tëj ak cadenas waaw waaye di nga xam ni man maay sa goro te kenn du lambada man jeeg du lambada sama digg bopp përëg ngay jaay maa la ëpp përëg maa la gën a réew maa la gën a sës goro bu bon yooyu nga yaakaar dinaa la jural turandoo yow ah. mu jur sa juróom-ñaari jikko yu bon yi yow yow mère yow la nga ma deful ci kër gi yow musoo maa bëgg dëpp la premier jour ma ñëw nga may buntu xataal yow dóor nga ma yow saaga nga ma yow toroxal nga ma yow musoo ma gërëm say diggu mbokk yow yaa bon yow ngay goro bu yées goro bu sonal ay ay ay ay ay jabaru doomam yow maa la gën a réew foofu maa la nee na atta le droit d'être heureux Donc, nga koo war a bàyyi mu dund dundam te sëy sëyam bii soo ko bëggee jàppale nag ko ci Khadija c'est son choix moo ko tànnal boppam. man sax la dernière fois jot naa waxtaan ak moom te wax dëgg yàlla gisuma ci mom ben sik ndur na ma ko bëgg sëy am yar te amna na man ak Fadel nak yemuñu ndax mom dula wax deug man deug bi ngay baña deug man maa la koy wax nga nek fi nak nan ma ay njaboot dan moy njaboot. Makan xana ku bëgg ginaar bëgg ay eh paré nga yow yow da nga seytane du ne nga dama wara jappalé Fadel ah waye man kenn waruma jappalé man ne nga waxtaan nga Khadija waaye waxtaanook man ndax man yene woo ma lu bax sama toroxtaane ngay wër suba ba ngon nga jog awak yaay avocatu kër gi ah am fit nak? di nga yex am jëkër jëkër dang koy deg mu rombal sa tamboram yeb dinañ sey nga baax nga des ci yow du ma mom sama course gi te ma yor ñaan gi yàlla dima ci jappale nak do sëy jógal nak jógal génn sama kër ci biti xolal bu yebbo mama man bu yebbo mo baña am jëkkër waye ma dul bayyi ben mère bu dundul do ba mu jex tak ñoo bëgg diriger sama vie. ko virkit virkit bi di ma jaay ay ay ay je prends acte xaaxadi sa xam nga lu ma jaaxal avant nga fee ñëw tonton su ma ko toggalee ñànk tag sax mu ne ma njaay tu bien fait cuisine waaye léegi lu ma ko toggal mu sawate ko ma daal nga sa secret tracteur daal mooy waaja gis nga waañ su weesoo sama épices yi nga xam ne c'est spécial benn secret rek la am muy la patience lu ci ak waxtu ba mu dem cin li ko ci yoon rek man nag patience boobu laa amul ndax man damaa yàkkamte ne biir buy daw damaa la mbax trop. bàyyi yooyu Kamaka bi dis-moi un peu tu la trouves comment pour un début. adorable mooy toppatoo comme bébé et je te dis même pas xanaa gisoon na mu belli bi hein? ah. ndeysaan macha allah je suis trop contente de te voir comme ça ah hein. macha allah mais nag euh, je vais te dire une chose hein.. Euh, si tu tiens à ce que ce ménage-là fonctionne, maman faudra la gérer. Hein? Oh, je t'arrête de suite. Maman, avec nous, mon timel, ce n'est là. T'es yaï là. On doit la gérer. D'accord, Nancy, les gars, mais c'est pas à Khadija de la gérer. Maman, Yomi, a quoi la gérer. Et puis, la connaissant, je sais qu'elle va lui mener la vie dure. Ce ko may dara man la dernière fois bon on a eu à discuter un peu avec Khadija et sérieusement bon moi je la trouve adorable nous na ma nous nous sommes ma muñkat tamit mais sama yaay dama koo xam Et Khadija tamit quoi qu'on puisse dire nit nit rek la et je sais que su fekkee que mon mari am yenn affaire yu mu ko nag à un moment il va craquer Je naa li ma t'inquiète pas pour ça

su une femme, rek comme femme ma salut mon prince tu vas bien. salut ma princesse. tu m'as manqué. maman. Tu tu bonne c'est quoi ces manières Tu es tu es mal es une Fatima es changer? C'est une tu mais tu tu comme courant d'air toi aussi n'est-ce pas avertir pour le best allez vous préparer mes amours je vous attends allez vas-y ma princesse en plus toi tu as maigri tu as fondu on dirait qu'on s'occupe pas bien de toi on la si yow sa comportement de bas étage bi ngay def ni di Tu la yow ni rek nga mel ni rek yow la ak personnalité zéro yow ni rek ni di yow à quoi tu joues wala yow à tu je te repose la question relation ak Fadel jeexagul waxuma lu loolu de yaa gën a xam ne ba ma lay wax loolu du lii moo taxoon. Hmm. gis nga Fadel soo ko bëggee récupérer du nii nga koy defee. amal jom ci sa bopp Fatima. gis nga Fadel fi ma ko téye xam na man xam naa. lu li wax di ñaax personnalité gi gis nga sa sëy boo ko sëyoon na ko waree kon ba tey ji yaa ngi daagu ci ginnaaw fa Fadel pour l'instant kër gi Khadija moo fi sëy amal jom ak tuuti personnalité. di nga xam ne kii fi ne sanaw nawle la ñàkk nga jom torop loolu c'est plus un laps de temps tey Khadija. ma chérie. Ndiaye. Hein? maa ngi leen di tàggu maa ngi dem weekend sama kër yaay. dañ dañu fi bàyyi ñëwee. ah bàyyi ma dem rek. comme léegi sama papa dafa ma fali kii yaa mooy doomam bu bees bi. yow loolu même sa papa bu ko naroon sax man du ma ko nangu yow tamit yaay sama doom. Mm.

Ndiaye da nga ëppal nag fii ak fii rek la ko fël. ba pare ba ci ba ci ba ci xulu fauteuil bi la la dem toog fa waaye yow moom xam nga ne sa papa moom du nangu loolu. laay yaa ngi fàttaliku bi ma ko waxee nii dama doon bëgg a teg benn xale bu góor tuuti mu ree. tonton bi soo fa mer de te taa Xadija bi soo laay yow moom bos boo ko defee yow yaay raw féeriru c'est bon sa papa nee na fii ak amoo vingt cinq ans doo am copain bu lay seet si ci kër gi. mais bon. Ah, Maïdem, passez un bon week-end. Merci, mon chéri. Yeah. Non? ما ما خلي ما دبل Fadel bi ñu xamante ba tey yaa ngi may soog a def lu ma naqari. man ak def lu la naqari yoo xam nga ne doxuma ci loolu. yaa lu mu fi indee góor ngay cautionné loolu. yow loolu moo tax nga may attaqué nii yow di plutôt que li nga gis Fatima ci kër yi moo tax nga may fiire mais man yow laa bëgg te maag Fatima c'est fini bu dëgg. Fadel loo nangulul ma mi Zara rek waroo ko nangul Kia. yang may bëgg jaaxal nag. du loolu de il se trouve que bëgguma woon frustré Kia. kanamu moromam bi. yow comment frustré Kia xale la fan la toll bay dugal góor ci kër gi. yow koy dis-moi plutôt li nga ko jurul moo tax.